asalaamaaleykum. waaleykum salaam bisimilah. asalaamaaleykum. waaw ni ma ko doon waxee. waaw ñu ngi lay déglu. yokkal leen fii si ñu ñu mën ko dégg fii ah ma aw nit nit ku ne li nga mën a wax. waaw. bu fekkee ne jullit nga. Mm-hmm. mooy li nga xam. ok. loolu nag jotewul dara ak supputation. may la ñu retour fii sax wala loolu bokkul dara ak ay supputation ay ay ay kii. une enchère. Mhm. wala euh, ñi nga xam ne. ok. maanaam euh, am na fa am nga yéen seen débat dafay nekk euh, débat wu tout venant. débat ah. tout venant. ok. tout venant li français di tout venant. bu mhm. waay jógee rek dugg ci pecc mi. amul am naa xam-xam amul dara waaw ma ci dégg wax yoo xam ne sax yow ci sa bopp da nga koy génne waxu nit ku fele la moom ko fele ok mais on passe mhm. man daal li nga xam ne sama xam-xam ci la yam mhm. mooy li yonent bi waxoon ak i saxaabaam mhm, mooy lan niñ doon doxalee mais bëggoon nañ xam aussi bëggoon nañ xam aussi sa position par rapport ak criminalisation bi nga xamante ne ànd sàmm jikko yóbbu nañ ko assemblée ndax bëggu nañ ci xam sa position en tant que kilifa diine. dama ne man mën naa nekk sax kilifa diine mën naa nekk kilifa politique mën naa nekk kilifa borom opinion mais li ma bëgg a wax mooy. Mhm. dans la mot criminalisation crime n'a jamais existé. ah crime amul. déet te kenn dañ déet bu crime amee duñ ko criminaliser xam nga li cosaanu crime mooy rey nit. Mhm. te soxla nañu criminaliser rey nit. Mhm. xam nga soxlawuñu ko mais mais criminal yi ñu def nañ ko bo vol de place déjà nit ki bu criminalisé nañ viol tamit ay propos bu dee dafay bu dee ay bu dee dafay euh, véhiculer mhm. ay dafa war a am benn euh, benn continuation logique ok si je si di je criminalise ça veut dire jamais eu crime yow yaa bëgg a criminaliser ok xanaa leer na mhm. donc man nañ ma laaj li yàlla wax ak li yonent bi wax ak li euh, jullit ñi di doxal depuis junni ak juróomi téeméeri at. Mm-hmm. mais pourtant lii euh, sëñ Mountakha ma sa kilifa di xalif yi ngay wax xalif généraux yëpp ñoom ñoo porte combat bi ñoom ñoo signé pétition bi ñoo yabal ànd sàmm jikko yi. noonu ñi ko wax loolu c'est pas vrai. ah non ñoom ñu ngi nii toog. waaye dama ne loolu c'est pas vrai. maa leen gën a xam sëñ Mountakha. mais sëñ Mountakha sañ na pétition bi sëñ Babacar a ngi nii. non non non sëñ Mbaye Sy Mansour. c'est pas waaye déglu ma rek. xam nga boo jógee. waaw sëñ bi dem ñu recevoir la. il y a des il y a des audiences. qui sont des audiences protocolaires. salaamaaleykum jox la lekk naan. ma ma jox la kii bi nangam nangam. nga daal di ne nangam ñu ne loolu duñ la wax nii rek. ok nga jël man ci turu xalifa yi déedéet xalifa li ñoo koy waxal seen bopp Mm-hmm. taxaw bi sax dañoo moomul diine ji diine jee leen moom mais ñoom moomul diine ji mm-hmm. dama ne man li ma wax mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lam mm-hmm. doon lam doon ak lañ fi bàyyi ak lañ doxal gannaawam ba bés ni tey ok man loolu laa wax merci jërëjëf jërëjëf leer na jërëjëf ok buñ bëggee génn loolu nag bëgg indi ay groupe de pression ak nañ def nii yooyu yooyu beneen affaire la ko ça c'est de la politique d' accord ah kon jàpp nga ne <laughs> jërëjëf jërëjëf jërëjëf Niass. jërëjëf waaw man na. waaye nañ ko yóbbu ci ko sosal yàlla de. jërëjëf Niass jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax jërëjëf daanaka position am leer na. kon ma ma waxoon ni waaw daanaka foofu waaw. yëpp un chef d' état weesuwul. ok journaliste. Mhm. bu mel ni Franck Simonet. Mhm. le 26 novembre 2016. Mhm. ci sommet francophonie bu Antananarivo. ñëw dàbbali ko waat. ok ne ko yéen a ngi góorgóorlu ci démocratie y a la liberté d'expression liberté d'association waaye da ngeen xaw a tardé. Mm-hmm. parce que ba tey góor jigéen ñi joxul leen seen ak ak seen yelef loolu ñun on l'accepte pas. Mm-hmm. du ñu nangu ku yore. i séentu ni gis-gis boobu mu am man jàpp naa ni député yépp gis-gis boobu rek la ñuy am. Ah, ok <laughs> xëy na amaana ñàkkul tax am ñu génn. Mm-hmm. waaye ñëpp fii ci fii la ñu mujj ndax ñu ñëpp ay sénégalais lañu. te sénégalais ci boppam ñoo ñoo bëggul mbir mi ci boppam. absolument mbirum góor jigéen kon honorable vraiment ñoo ngi lay ndokkeel bu baax di la gërëm. ok euh, man na xam naa ni je suis un peu xam naa pene ndax ñu nit ñu yare euh, nit ñu yare ci ay teggin. Mhm. laajul euh, mag wax nga ci tegaat baat. Mhm. ñun xamuñu loolu vraiment jànguñu ko. ok kon naxjul xadaay laaj. waaw damay leeral rek dama ni moo tax ma ne je suis gêné. Mhm. je waaye nag laaj na ko. ndax lu demee nii boo toogee ci am pénc. <laughs> nit jóg fa daal ni leen kilifa yi nangam ak nangam waxuñu. loolu waa wax dëgg yàlla. Euh, loolu lu doy waar la. noonu rek laa ko mën a wax lu doy waar la. Mhm. bataaxal bii li may wax ni ku ma xam ku nekk xam ni. <coughs> wax dëgg yàlla nit ñëpp a ngi ñuy déglu. Mhm. senegal gépp a ngi ñuy seetaan. lii Serigne Mountakha Mbacké moo ko signé. Mhm. jox ma ma téye ko. sëñ la neexee nii. Saliou Bey ko voilà. sëñ Mountakha Mbacké moo signé moo signé lii. bi mu koy signé yi tamit mën naa wax ña ko fekkee woon ñëpp bi ma signature sëñ Mountakha. lii sëñ Mountakha ko signé en personne moo signé cachet mi ngi nii. ba noppi def ci numéro téléphone boo xam ne ku ne mën na cee woote. Ah, mooy ñett yi ma waxoon sànq ni ci criminalisation damay lim kilifa ba noppi ñëw ci loolu. Mhm. bii sëñ Babacar Sy Mansour ah, ak cachet. voilà bi bi sëñ Baye Sy Mansour moo ko signé ah. sëñ Babacar ah. moom wax ni xalifa yi yëguñu ko. Mhm. loola la nga wax yow la engagé. c'est important lan lañ signé. Mhm. Euh, ci ñëw damay lim xalifa yi ba noppi. bi Cheikh Albekaay Albekaay moo ko signé. xalif général bu. xaadiriya Ndiassane moom moo signé boobu moo signé bi ah waaw ok sëñ Mouhamadou moo signé bi ak cachet mhm. na leer zal jëlal bi ah hmm? sëñ Mahi Niass moo signé bi moo signé boobu mhm. xalif xalifa Medina Baye waaw sëñ Abdourahim Seck moo signé bii yal na borom bi dolli ko euh, yërmande ak ak fay ko mi ngi nii ah? mooy xalifa le défend xalifa de Thiénaba parce que bi ñu koy signé moom moo fa nekkoon absolument sëñ Assane Seck fi nekk nii rakkam moo fa nekk bi xalifa Medina Gounass. Mhm. Thierno Ahmed Tidiane Ba moo ko si. Thierno Ahmed Tidiane Ba. ngi def ci ah? cachet bi ah. Hmm? ok. Mhm. bii xalifa Léona moo ko signé. sëñ Cheikh Tidiane xalifa Niass. Mhm, mi ngi nii xalifa Léona Niassène ah leer na. Hmm? voilà. bii sëñ Muniru Njegeen moo ko signé. ok. Hmm? maam Alaaji Thiès. la famille Ndiéguène vraiment doy na. doy ah, na non non li si li li nga woon di signature na leer na bi bu àndulaay moo signature ok hmm. oui ah, mu àggale. ok hmm. ngi dégg. Hmm. waaw baal mu mat. El Hadj Mame Abdou Dramé xalifa àndulaay moo signé boobu. moo signé bi muy àndulaay. ok ca wetu ndànd. sëriñ El Hadj Modou Cissé xalifa jaamal. macha moo signé bii def ci cachet. Mm-hmm. Hmm? jaamal moo signé bi waaw baax na waaw imam Fansu Bodian mm-hmm. Bignona moo signé bi mm-hmm. yii ma yi yii ma ci teg yëpp lu ci nekk xalifa la Cheikh Madani Tall Cheikh famille omarienne famille omarienne seen signature mi ngi nii waaw leer na Sëriñ Abdoulaye Thiawlaay waaw sëñ Abdoulaye Thiawlaay moo signé bii waaw mm, je pense que lii leer na nañ parce que preuve à l'appui Mm. El Hadji Ousmane xalifa Khalifa Pall. Mm-hmm. maam Rawaan Ngom. ok moo nekk nii. ah. théâtre bay nekk nii. Serigne Makhtar Seck Khalifa Ngourane. Mm-hmm. moo si ñëbbi. ok mu ngi nii. nga nga topp ko nii. <coughs> xarit ak yii yëpp. yow ma ci loolu. yow ma ci loolu <coughs> mieux. danaa dikk ci ñetti tomb yi ñu signé mais mieux. xalifa yooyu yemuñu ci signé rek. Mm. lii sëñ Babacar Sy Mansour. Ah. texte la bind ci ci ci kii bi texte. ay waxam mi ngi nii. ñuy wax déclaration. signé ba noppi commenté ko. ay wax. Mhm. bind moo ëpp doole ay wax. Mhm. bind. Mhm. moo ëpp doole ay wax. yamul moom ci wax ko kese. dafa bind jox ñu sëñ Babacar Sy Mansour mi ngi nii. teel ko. teel ko mi ngi nii. mi ngi te ñu may ma tuuti ma taxaw foofu. Ah, li li bi ñu seetee bi ñu seetee. sëñ Babacar Sy Mansour moo bind lii. bien sûr bi ñu seetee bi ñu seetee bi ñu seetee sëñ Abdou Aziz Sy Al Amin di waxtaan ak moom ci euh, euh, le code euh, de statut personnel wax ko ni ko historique bi moom lépp xam na ko parce que moom moo ko doon piloté ni ko daal dañoo bëggoon ñu yëkkatiwaat ko ak ñu dugal ko muy code de la famille bu musulman yi mhm. appliqué ko ci jullit yi waaye ci dénkaan bi dafa am lu am solo la ñu dafa ne ñu léeg-léeg may dégg ñu naan sëriñ si nañ wax sëriñ si nañ wax. Mhm. mu ni ma ñun bañ nekkee ndaw am na loo xam ne daawuñu ci xaar mukk suñuy kilifa te kenn ñemewu ko woon. Mhm. ndax ñoo ko mënoon. soo xisee am sa kilifa ni la lii taxaw ci la ca nag ci yow la des. Mhm. te yaakaar naa ni vraiment processus bi ku am loo ciy sikki sàkk ak loo ci kii da nga xamul li xew. ànd sàmm jikko yi posture bi mu am. Nations Unies yëngatu na. Mhm. maanaam pays pays pro gay yi ci àdduna bi yëpp yëngatu fi mu nekk nii. Mhm, seen lobby yi ci biir réew mi yëpp ñoom ñëpp a yëngatu. Mhm. parce que dañoo laal fi mata du coow lu bari li ak wax ju bari ji mooy li am solo. li am solo mooy incidence bi action bi ngay posé bi ngay posé. ak la muy jur mooy li am solo in fine fan nga jëm. c'est ça le plus important. nekkul ci nit noo des na lii sax mënut a ko bind. sëñ Mountakha Mbacké mhm. mhm. déclaration bii nii ci mbirum góor jigéen mii le 23 mais la ko la ko def joxe ndigal sëñ Mountakha yón nii rakkam sëñ Ahmadou Badawi moo def déclaration bi li may wax nii ci plateau télévision lay waxee mhm, xam nga keroog bi ñu defee le 23 mais bi ñu jaawàccee fii fa laa déparé man continuer directement dem Touba ca kër sëñ Touba ga lañ defee la déclaration la sëñ Mountakha yónni sëñ Ahmadou Badawi di rakkam moom moo jiite euh, Rawdu Rayahin boole ko ak sëñ Muntaxa Pakala mi nga xam ni ku xam sëñ Muntaxa xam nga ko. Mhm. boole ko ak doomam. ok ay doomam sëñ Basiru Mbàkke mu sëñ ab Cheikh Abdou Fall. Mhm. d'ailleurs le 23 barki démb ñëw na. Mhm. te ku ne xam na ni liggéeyu sëñ bi lu ci bari ci wàllu biir moom moo ko yor. kon fu mu teew teew na ci ndigalu kilifa n'est-ce kon loolu c'est important ci ñu wax ko ci ni. Mhm. kilifa gi doon wax léegi xëy na dafa amul kon la bonne information. man loolu laa jàpp ne xëy na dafa amul la bonne mhm. information. ok waaye lii ñuy wax. ci ndigalu. na ñëw ci continue ci ndigalu kilifa yi lañ ko wax. ok contenu bi nag li ñu signé woon lii la. maanaam kilifa yi yëpp li ñu signé lii la li ñu lan la. Mhm. mooy maa ngi wane sama opposé wu. Mhm. ak wan ginnaaw ak bañ mbirum góor jigéen. Mhm. ak agenda bi nga xam ni tey jii ñoo ngi koy doxal ci biir Sénégal mu jëm horizon deux mille vingt six. ngir lan am société boo xam ne xeet wuy dëkk woo xam ne si boddee dootu ci am. te ñoo xam li ñu ci jublu. te loolu noonu lañ ko noseete yaxal ko ci li ñuy wax la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité des genres. te loolu du impliquer ay droit yoo xam ni. góor jigéen ñi mën nañ ko ami ci réew mi ñoom ñëpp signé nañ ni loolu ànduñu ci d'accord ñu ci. muy benn. Mm-hmm. daan ni ñoo ngi attirer attention wu autorité politique yi. Mm-hmm. ni ñoom ay ndaw lañu képp yoo xam ne dañ leen a jox sañ-sañ ak ak doole. Mm-hmm. kon ña leen ko jox nañ leen di bàyyi xel xam ne ñoom ñooy seen doole. kon nañ leen di bàyyi xel ci seen i bëgg-bëgg ak seen i gis-gis ak fanu joxañ waaye ñetteel bi ñu ñoo ni exiger la ñu wax. ab loi buy criminaliser homosexualité. lesbianisme ak. mbeleen mboo mbir moo xam ni mi ngi dugg ci biir LGBTQ. Mhm. zoophilie nécrophilie ak assimilé fii ci Sénégal. Mhm. mboole seen ñoom ñëpp ñett yi lañu lañu lañu si. Mhm. absolument. bii sëñ Cheikh Tidiane xalifa Niass la. xalifa lew la zaal wane ko nañ ko nañ ko wane. ngi nii gis nga signature mi ñaari yoon la ko ci teg. ok ba ci barki dem bañ fa demaatee rek def na déclaration moom. nee na yi bis bu ne ngeen voté boo xam si amalul njariñ kenn ku dul seen bopp. kon voté leen loi bi nga xam ne askan yëpp a ko laaj. wax na lool. ok te partagé nañ ko. kon yaakaar naa ni en vérité en vérité mbir mi lu ñuy. laq-laqal ak lu ñuy kii amu ci. ok yaakaar naa ni mënuñoo toog fii quand même jërëjëf leer naa mënuñoo toog fii mais nga koy waar benn pour Ahmed Khalifa Niass moom tam na signé. mais mais c'est une excellente idée. d'accord jërëjëf ah, jërëjëf